Mbacke on dugg naa ay bagage yu baax yu baax te rafet xam nga damaa war a yóbbu sukkur koor sama kër ñun ñaareel suñu yóbbu suñu yóbbu sukkur koor moom mooy loolu bëggoon naa daal bu baax a baax si di ko bëgg démb lii maa ngi mang ngi nii place Mbacke dama bëggoon daal jël si ay bagage xam nga yaa ma xam daal dama war a yóbbu suukar il faut ma jënd ay mbubb yu baax laa ko bëgg yor naa ko 500 300 mille ko bëgg yamale ay bagage 200 rek la ñaw bu kër Mbacke ma ko jëm ci yow. yor naa fi ay bororo. ay fax. ay voile. mu ko mari gaye bororo waaw jaune boobu man damaa soxla woon jotaay bi jotaay bi nag li tax ma soxla ko mu jub ci weer boo xamante ni bii gàggante ci ay ndaw dafay baax ndax jamono moo jaxasoo jaxasoo boo xamante ni bii këf leen dafay yomb waaye nag bu fekkente ni bii seen mag seen kilifa jiitu na ci yéen kon yaakaar naa nii ñu leen gisee ngeen ñu góorgóorlu ni dinañu am xel mu dal ci jaamu yàlla bii nga xamante ni ci li ñu def muy weeru koor ñi ko sàgg ne nag bëri na waaye nag ku am njaboot. tënk ko fi la say baay yu baax tënkoo kon yaakaar naa itamit jaaj ji la rek mais xam nañ ne yéen a ci fekkee nag pom bi moo waral ay gaaw xam naa kii sóoraale mu ko ci woon xam naa seen xarit xarit bu jigéen nag bu góor nag gaa wóolu ma ko woon waaye comme tombee waral ay gaaf dama ko ciy boole parce que njaboot

Waleg, também da Gatis, também da Gatis, John Bissis, de nome de é um, da Costa não do Belo Praia, da Luz, da Costa Corral. Levinho, pai, da Casa Levinho, sou tá muito. njaboot moom njabootu ñëpp jullit yëpp sa njaboot la waaye nag na ngeen góorgóorlu ndax seen baay mi nga xam ni moom moo fi jóge man mii magam tey jii ni ñu suñuy baay yare woon moo tax tey mu wóolu tey ñëw fii toog ci ay njabootam ndax ñun ñoo leen jur waaye moom mu ñu leen ñun ñëpp yàlla moo moom mm-hmm. loo xamante ni moo ko téyal boppam yónneewu ko mm-hmm. moo koy fayal boppam kon pay ga du nduro pay gu bindef kon na ngeen ci góorgóor deng nga baax na jaw nag yaa mu jéggi du waye xamna naa yow waaye na nga góorgóor kii moom ak ram bi yow bu fekke ni ngay woore nak tenko ki nak nag ah ko jap am ah, mo fils ah waaw dengue mo dama ragal koor de voilà mu ngi noonu nag la bëgg ta xamni comme ni ma len ko waxé rek ñu ñu leen jur yeen jaar ci ñu waye yeen itamit ñu ne yéen ñëpp yalla mo ñu bokk moom te ëllëg yow ma saam yàlla mën nañoo laaj ci góorgóorlu leen ndax da ngeen toll ci jóg jamono këf leen day yomb waaye nag yàlla na am njaboot yëpp am kilifa boo xamante ni bi bu dégg jamono la. amiin su ko defee mu gunge leen ci diine ji. amiin